mais non pourquoi euh, ces gens-là ils viennent nous faire chier le marabout le marabout bu bëgg koo def benn combat benn combat wu religieux boo xamante ne ça n'a pas raison d'être man c'est ça qui m'énerve en fait un deux trois rek marabu marabu marabu mais mais yéen yen yen yéen yéen a fal marabu bi man dama bëgg a xam rek ndax yéen day yéen dem ba ci urne bi ne ca wax ne nañu foteel marabu bi euh, pour mu nekk président de la république. tey j'en suis sûr que marabu bu ñu ne day présenté wu président de la république kenn du ko fal yéen seen caisse de dépôt ba ko am Macky Sall di doon jox Aliou Sall da ngeen ne Macky Sall jox leen ko euh, euh, marabu bi wala jox leen ko curé bi mu téye ko ñun ñëpp ñoo ñàkk fayda ba mu jël caisse de dépôt bi teg ko ci loxo Aliou Sall Aliou am ci audace ba bëgg a dee takk sax deuxième femme. muy dund di ñemmi-ñemmi suñu kaw ñun ñëpp ñu gis ko teg suñu bët léegi nag bu fekkente ne yéen da ngeen nekk yàlla ragal a dem affronter Macky Sall wala ngeen ragal a dem affronter Aliou Sall mais lu tax ngeen koy këpp ci ñi nga xam te ne tooñuñu leen yorewuñu seen xaalis ngeen naan waa sëriñ si lu yàq Sénégal moo ko yàq lu yàq Sénégal politiciens yi ñoo ko yàq bu du benn sëriñ moo ko yàq parce que politique bi fi am yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp politiciens yi ñoo ko fi teg seytaane fi am ci dëkk bi yëpp politiciens ñoo ko teg ñoom ñooy fii fiip ñimbe bu bu bu élection jotee ñooy dem di rambar lambari ci ay purée ci ay ay sëriñ di dem foofu di def yëfu seytaane di dem foofu naan jàppale ma. sëriñ si dafa ne Macky Sall kaay ma jàppale la Macky mooy dem di lambar lambari bu élection jotee mooy dem foofu di ripar pari pour demander ñu jàppale ko Macky Sall bañ ko waree tëj moom dem ñaani ji sëriñ bi pour ñu ñaanal ko pour lay waat bañ koo tëj. léegi bu demee ba tollu fii ñëpp naan waa nañu toj yax bi nañu toj yax bi. bu fekkente ni da ngeen naa ragal xeex-xeex bi parce que man yenn yi affaire de cuune laa ko gis da ragal xeex-xeex bi ragal a affronter Macky Sall léegi jël lépp waaw sëriñ si moom de toutes façon façons li yàqu ci dëkk bi sëriñ si la sëriñ si yàqul dara sëriñ si je suis sûr boobu sax ak ki nekk Tiwaawoon ak ki ak prêtre yeex yooyu da ngay compter le nom de fois yi nga xam te ne dañuy génn dem Dakar waxuma sax romb dem ca Palais léegi saa bu ñu xëyee rek ils nous emmerdent ils nous font di dugg ci page yi naan sëriñ si Akhenaton sa rakk bi nga xamante ne tey jii moo demoon defale ji campagne électorale xomom sa mag la sama bu jigéen boobu demoon defali campagne électorale ba tegal ñu fi Macky Sall balaa ngay dem di wax ci sëriñ si demal lijjante ña nekk sa famille ba pare ñi nga xam te ne ñoo dem voté Macky Sall nga xamante ne contribuer nañu ci ci ci li ñuy toroxal tey. c'est ça que je veux parce que tey y'en a marre un deux trois rek Serigne si di def ay live toute la journée Serigne si tey Macky mooy mu continuer di signer pour pétrole bi di continuer di signer ci gaz gaz bi di continuer di jël suñuy xaalis di ko sàcc di jël lépp di ko paacoo seen famille ngeen ragal a dem affronter Macky ngeen dem waaw Serigne si lii yëg lii man maa xam nag fa ngeen jëm fa ngeen jëm man maa ko xam parce que deux mille vingt 2024. Macky Sall il a pas assez de militants ndax ñi muy dóor yëpp yëpp yëpp duñ ko voté xanaa ñu ñàkk jom wala ñu maso une bonne partie APR tey jii suuratuñu xanaa ñu xaar à la dernière minute ñu jox leen juróomi dërëm ñu dem voté Macky Sall tey yi bu ñu ko diviser sëriñ yi yëpp bu ñu joxee ndigal ne déedéet bu kenn voté Macky Sall Macky Sall du toog ci palais bi. loolu moo wane ne Macky Sall dafa am pouvoir bu tuuti ci dëkk bi boo xam te ne xam na ne tant que sëriñ saa ngi exister tant que religion ngi exister pouvoir am day gën a réduire. léegi na ñu mel ni Akhenaton man du ma wax ne ci Macky Sall la bokk parce que xaw ma fa mu bokk léegi ñu koy may pour jéem a frustrer le maximum de talibé pour ñu dem ànd ak Macky Sall moo tax saa bu ñu xëyee matin midi soir du ñu amer de wii les marabouts wii les marabouts les marabouts ceci les marabouts cela léegi boo leen xasee marabu bi ban impact la am si suñu pétrole wala suñu gaz wala suñu caisse de dépôt ban impact la ci am man je vois pas l'impact xanaa boo leen di xas nit ba sëñ Bas jël yëkkati terrain ba ko Macky Sall mayoon sax delloo ko ko xanaa ngeen war a mun a toog wuti jiwaat beneen sujet mais non ñu jàppal ko ci rek sëriñ si sëriñ si parce que ça vous dérange qu'il y ait des talibés yoo xam te ne voté ñu Macky Sall wala tey da ngeen bëgg taalibe yëpp dem votel Macky Sall comme ça Macky Sall toog fi continuer duñu toroxal mais faut le dire publiquement parce que indirectement dafa mel ni yéen Macky Sall ngeen di liggéeyal ah. neexul ba neexut parce que tey jii moom yéen wóor na leen ne ne tey jii Touba tey Macky Sall ñàkk na fa Macky Sall dafa daanu Touba. ñi toppal ko si rek sëriñ si sëriñ si économie économie yow Akhenaton sa sœur bi bu defoon comme waa Touba tey Macky Sall du fi toog man mii tamit samay mbokk yi votel Macky Sall bu ñu defoon comme waa Touba tey Macky Sall du fi toog tey ñu ñu tooñ mooy ñiy dem votel Macky Sall ay ñoom Cissé Lo ñoo ñu tooñ bu ñu paree ñu naan waa Cissé Lo waxkatu dëgg la mais bu nekkee day wax dëgg te du jëfee dëgg tamit moo fenkat yee yem. parce que daf ko jëfewul bu doon jëfee dëgg kon élection yi du dem voté Macky Sall mais nee na bu dee suuka sax jaral na ko jabet na assume jabetam Cissé Lo na assume jabetam mais gis nit di ñaan posté naan waa Cissé wax waxkatu dëgg la moo sañ wax dëgg parce que yéen Sénégal lu ma gis mooy wax moo leen di dundal bu fait ku ci am problème bu métti métti métti métti métti métti métti boo ko nekkee entre choisiral wax ak ma ma fajal la sa soxla dala naan wax bee faj sama soxla loolu tax ñoom Cissé Lo saay bu ñu toogee ba kenn déggatu leen rek ñu génn def benn affaire bu ndaw demaat toog Cissé Lo wër na ko ne dox drogue biy dugg Sénégal nee na autorité yi nekk ci gouvernement am ñoo ko fiy dugal mu gis ne Sonko dugalu fi drog mais ñay dugal drogue bi ñooñ la dem votel ñooy dugal drogue bi ñoom la Cissé Lo ñoom la Cissé Lo dem do voteel tey kall-kale bi man dama ci sonn baaba ay dara Aïdara pareil man damay toog di imagine nit yi comment les gens nous prennent comme des cons Baba Aïdara yow ak ñoom lëkk mareem yéen bokk fa leen jàngandoo alxuraan yéen ci famille boobu ngeen bokk yéen ñëpp ay xarit ngeen vous êtes des copains hormis tout ce problème là c' était pour copain léegi mu ngi complot jege Sonko di annoncé man xam na affaire bi comment ça marche il a annoncé il a parlé de de de de de pétrole il a parlé de problème il a parlé de pétrole ba ba ba ñëpp ba ba jege Sonko ba ñu commencé di liggéey ah ndekete c'était pour se rapprocher pour daanal ko mbas ko di nga Baba Aïdara ni mu mel beaucoup de Sénégalais sont comme ça. waxuma ñëpp ñoo ko mel de mais beaucoup beaucoup beaucoup de sénégalais sont comme ça buñ la bëggee daanal dañuy ñëw approché wu di waxtaan ak yow jege la jege la jege la ba nga foog ne yow la ñu àndal après c'était pour t'étudier pour mun laa mbas nga daanu c'est ça le la politique sénégalaise au fait lan lay jege étudier la étudier la moo tax ñun suñu fa suñu xeet ñu bëri ay espion moo tax ñu mun ñoo yónni espion moo tax ñu mu bëri ay traître yoo xamante ne tey dañ leen di yónni ba pare ah ñu ñëw jàng-jàng nit ki ba pare mbas la c'est le cas de tous les nu ñu koy waxatee RG sénégalais yi nekk ci internet bi ah. même même méthode bi la ñuy utiliser dañuy ñëw jege la ah yow yow kañ soxna si ni nga baaxee yow kañ li yëg yëg lii mais comment tu peux savoir si maam baax na wala baaxut yow xamoo maam. gisoo maam mosoo leen toog di lekk ci benn bool ni nga baaxee man kañ dama lay seetaan ma gis ne ne lii yëg lii yëg lii yow kañ ku baax nga mais tu peux pas savoir si je suis gentil ou pas léegi nga ñëw ubbi porte bi ñu commencé wax yow jàng nañ la bu ñu paree nag ñu dem mbas la mooy ay dara noonu la def Sonko ñoo yëkkati commencé wax pétrole ba rassuré ko ba ko ci ko ci ko tem mbas ko on a un comportement mesquin boo xamante ne lâche xam nga moo tax ñi nga xam te ne dañu nekk ci pays ñag yi ñu tane ñu ñoom buñ la buggulee dañ la woon ni bëgguñu la duñ la jege pour mbas la ñun sénégalais da lay jege pour mbas la sénégalais da dalay xaritoo pour mbas la tey Baba dara dafa ñëw ànd ak Sonko ànd ak Sonko ba nga xamante ne nee na ñëpp xàmmee nañ koo Sonko mu ñëw mbas ko il faut sa à d'autres pièges Cissé day ñëw yuuxu yuuxu ba population bi commencé jël confiance moom mbas parce que en a rien à foutre du peuple léegi ñëpp naan waaw moom waxkatu dëgg la na ko jëfee li nga wax dëgg ça ne suffit pas na ko jëfee bés bu Cissé Lo bàyyee di nga xam ne di votel ñi nga xam te ñooy dugal drogue bi ci Sénégal moo xam ne wa euh, jëfkatu dëgg la parce que tey jii waxkatu dëgg jëfkatu dëgg la ñuy wër. tey jëfkatu dëgg moo ñu manqué wax bi lañu doy jëfkatu dëgg koo xam te day ñëw di ko jëfee mais non pas ñëw toog fii moom kañ moom ñiy def fii état bi baaxuñu ñu ngi paccoo dëkk bi mais yow da nga bokkoon ca ñay paccoo ba paccoo bi neexee nga bokk ci Cissé Lo ubbi woo sa gémmeñ élection bi ba muy ñëw ngeen di jël xaalis di ko battre ubbi woo sa gémmeñ tey Cissé Lo bu bëggoon ngeen génn ci merde bi da da leen di génnee ci merde bi parce que Cissé Lo am nay nervi am ni Mame Mbaye Niang amee nervi am tey bu leen bëggoon ne bu leen bëggoon a protéger ne leen kaay leen ngeen génn ci problème bii ñi nekk ci littoral bi ñu ngi leen di sonal Cissé Lo day woote téléphone rek nervi yi wàcc sur place moom dafa am sécurité bu mat sëkk am base nervi léegi ñooñu nga xam te ne ñooy jël nervi yi pendant les élections ñuy dóor population bi léegi ñoo ñooy ñëw dina nañ yërëm population bi si si loolu le nombre de fois ñuy dóor nit yi di door maire yi di toroxal population bi il était où là moom dafa tànnoon camp bi toroxal population bi doole ma ne si si loolu këram amul télé si y a télé. toroxal bi leen Macky Sall di toroxal yëpp matin midi soir Cissé Lo mu koy gis sax bëtam Cissé li ngeen di yuuxu yëpp yëpp yëpp moo leen ko gën a xam mais dañ koy waxante seen biir pour kalikalee suñu xel yi pour ñu wax ne ah Cissé Lo de day waaja dem day waaj a quitté Macky Cissé Lo moo quitté wul Macky nee na bu fekkente ne makki Sall suukar la jaral na koo jabet Macky Sall lu mu bon bon bon bon Cissé Lo préféré na supporter Macky que de se mettre côté côtés du peuple amoo leen kenn seen wet. yi fi nekk yëpp ku ci nekk boppam la fi nekkal poche am la fi nekkal ils en ont ils en ont rien à foutre bokk faale wuñ leen ñoom ñëpp ah markatu taatu Macky lañu. Cissé wër na ko ne pétrole bi ñuy jiiñ Aliou première communion li ñu luubal suñu xaalis li ñuy def yëpp Cissé Lo teg na ci bëtam gis na ko il est au courant moom mooy taxaw naan non si Sonko li mu wax du dëgg dem votel ñi nga xam te ne ñooy dugal drogue bi ci dëkk bi moom moo ko confirmé léegi mu ñëwaat ñëw naan di naan day défendre population bi dafa yërëm population Cissé Lo il en a rien à foutre Cissé lay xaar mu génnee xaalisam. te lépp lu mu ci génnee c'est un investissement en fait campagne électorale lépp lu ci génne c'est pour que mu mun a maintenir a posam am saleram am continuer en même temps protéger ay économie te ñu ngeen gis nii yëpp hormis Sonko ñi fi am patrimoine yëpp boo gisee élection bu jotee ñoom ñëpp ñu investir pour nekk président de la république sénégalaise c'est pour que ñu mun a préserver seen patrimoine seen patrimoine moo leen yitteel sénégalais yi ils en rien à foutre yéen boo leen doon lekk soom bi sax ils en ont rien à foutre mais comme population sénégalaise lu ñu xiif xiif xiif boo leen tegalee wax wax moo leen di dundal Pape Nene maa nuyu bu baax a baax wax moo leen di dundal moo tax bu ñu leen dóoree ba pare ñëw caresser leen au sens du poil avec les mots parce que Sénégal moo nekk dëkk boo xamante ne dëgg dañ koy wax mais duñ ko jëfee amul kenn ku ko ciy jëfee ñu ci gën a bëri jëf bi sax xamuñ sax lan mooy lan naka la ñuy jëfee dëgg xamuñu ko moo tax Macky Sall balaa muy nekk président de la République lañ ne woon gestion sobre et vertueuse mais est-ce que jëfee na ko non non parce que Sénégal wax moo ñu dundal mairie de dakaar la bëgg Félix mais dafa bëgg a nekk aussi président de la République Cissé Lo Cissé Lo génnee na ci gémmiñam nee na 2024 day teg xaay si table bi bëgg a nekk président de la République parce que au Sénégal tout est permis tout est permis au Sénégal dafa xool analyser cerveau Macky Sall ba mu nekk fu ñu demee bay votel Macky Sall war nañ koo war a mun a votel moom Cissé Lo mu analyser xam na ne moom Cissé loo lu mu malhonnête malhonnête Sall moo ko gën a malhonnête parce que qui se ressemble s'assemble Cissé Lo bu demee ba ne moom Macky Sall sàcc bi lay àndal kon sàcc la tubaab nee na dis-moi qui tu fréquentes je te dirai fii tu es fi mu tànn fa la bokk noonu la mel. ñu fi toog naan waa Cissé Lo ko jub la moom de waxkatu dëgg la Macky Sall la tubaab nee na kii sa ressemble sa sam fenkat nga donc Cissé Lo fenkat la sàcckat nga donc Cissé Lo sàcckat la loolu man waxuma ko tubaab bee ko wax kii sa ressemble sa sam moo tax je m'attarderai même pas sur problème la sénégalais nag lu ñu bëgg dafa yomb torop torop torop torop torop yéen a ngeen bëgg ñu takkal leen jabar ba pare ëmbalal leen ko ñun waa diaspora bi te yéen yéen am problème yéen yéen Sénégal yéen am problème yéen la seen dund métti yéen la ñuy nangu seeni littoral yéen ay toog boo leen añee doo leen reer yéen la seen doom yi amul liggéey yéen yéen a amul liggéey le problème c'est vous ah tey ñun on compatit li nañ wax compatir on compatit mais mënuñu leen takkal jabar ba pare tëddal leen leen ko defal leen doom ñëw teg leen ne leen am loolu day yomb yéen yéen a war a jël seen avenir entre vos mains ngeen jël seen responsabilité bu dee toroxal bi leen toroxal Macky Sall di leen toroxal bés bu nekk neex na c'est doux comme du piment comme ni ko ñag yi di waxee ngeen jël ko supporté ka bu fekkente ne toroxal bi mu leen toroxal métti na yéen di ngeen jóg riposté boo leen riposté woo rek c'est que toroxal bi leen Macky Sall di toroxal c'est très doux comme du piment. xam li muy saf saf saf saf boo ci defee as tuuti ci biir lekk c'est day neex man loolu laa foog ne ne châtiment bi leen Macky Sall di def noonu lay def si seen làmmiñ mooy saf saf saf yu ndaw yooyu noonu nga togg ceebu jën bu neex def ci tuuti kaani day neex bu kaani bi ëppee day saf sa làmmiñ bu boobaa di nga wut solution tey je pense que ne li leen Macky Sall di def kaani bu ndaw la tuuti. boo xamante ne mu ngi neexal seen ceeb moo maam boo xam du ci sori ay wàcc leen ci terrain bi maam mu ngi lekk ba suuf maam kenn dóoru ko maam fi mu nekk nii am na liberté d'expression maam fu mu nekk nii wutuñu kenn ku koy toroxal tey on compatit maam day compatir kese compatir tuuti tuuti rek rek rek laay def ah? mais du ma jël sama bopp bi nekk ci ba dund bu neex donkaasi bu neex ne léegi man léegi damay jël sama bakkan bii léegi dem joxe ka ci ñi nga xamante ne ñoom seen avenir si boppam jaaralu leen dara votre avenir na moo tax ñi nga Macky Sall daf ñuy kàll kale comme ni mu ko bëggee balaa muy tëj eh, eh, kii bi man je vois Macky Sall venir ñi nga ñoom Akhenaton ak ay kémit yeeg yooyu di saaga sëñ si. Macky Sall depuis deux ans même voire trois ans mu ngi bëggoon restreindre internet bi voté loi boo xamante ni tey dina tax ba nga xamante ne ñun ñi daf ñuy limiter suñuy droit ci biir internet bi bi mu ko bëggee def yàgg na mais amul occasion pour def ka léegi nag dafa bëgg am alibi boo xamante ne ñun ñoo koy defaral liggéey bu bokk il veut qu'on lui fasse son mooy ñun sénégalais si boppam day yónni ay nit dañuy saaga ay marabu di si saaga ay affaire ba ñun ñu njëñ ne ah ñun di léegi comme dañu nekk ci internet bi di saaga suñuy mara bu di saaga suñuy nit léegi naa wàññi internet na wàññi internet bi na restreindre na dem jàpp ñu nekk ci internet bi léegi comme ça mu profité ci nag ñoom maam ñi nga xam te ne amoon liberté d'expression saagawuñu benn sëriñ mu tëj seen gémmiñ man soo vois la chose venir démb boo leen ma gisee may ñëw di attaqué Euh, Akhenaton ak ñi nga xam ne ñooy saaga sëriñ si man je tiens à ma liberté d'expression je tiens à ma liberté d'expression te tey ñi nga xam te ne ñoom la ñuy insité ñuy saaga sëriñ si pour Macky Sall sëriñ si mën a jox ndigal ne waa Macky Sall léegi nañu xool solution ci xale yi pour ñu tëj seen gémmiñ ce sera pas que ñu arrêté di wax ci religion bi de. c'est pour que moom ñu arrêté di wax sénégalais yi dëgg ba muy continuer dérouler plan wam comme sur une roulette parce que 2024 Macky Sall dafiy toog Macky Sall va rester ici en 2024 bu leen toog di rêver amul kenn ku fiy génne Macky Sall 2024 Macky Sall day sàcc élection yi comme ni mu ko defee nii parce que ñam naa ko neex na ba naa ko amul fenn fichier électoral bi du ci changer nada tey di ngeen dem voter du mujj fenn parce que Macky Sall maîtriser na leen Macky Sall ay xale cinkaleng sax mun naa ne cinkaleng sax bu génnee ci dëkk bi ne day manifester Macky Sall ko char de combat xam nga cinkaleng moom baaraam rek mun nga ko def nii mu mu dee Macky Sall cinkaleng yi sax melentaan yi bu ñu génnee ne dañuy manifester Macky Sall génneel leen char de combat. da leen di jël maîtriser leen maîtriser leen man Macky Sall maa ngi koy bëgg a parce que jël 15 millions d' habitants 15 millions d' boo xamante ne ñaata homme ñoo nekk ci 15 millions d' habitants benn Macky Sall bu ndaw bii rek dëgg la xaw na pataa mais benn Macky Sall boobu noonu ñëw jël maîtriser 15 millions d' habitants ba kenn ñemewul sëkkat kenn yabu ko kenn du génn wax. non Macky Sall il est trop fort yéen Macky Sall leen mëne ah Macky da leen mën ci ci lépp la leen mën mu am ñi nga xam te ne dañ leen di maîtriser de A à Z Sall dina réduire xam nga nee na def ne nee na euh, comment ça s'appelle marabout yi c'est des simples citoyens di nga simples citoyens yooyu noonu dafay pousser instant bi mu ngi pousser population bi waxal ko. confirmer la mu doon wax c'est des simples citoyens tey ñun ñoo nekk di defal Macky Sall liggéeyam bokk li mu waxoon noonu ñun ñoo nekk di def di di continuer liggéeyu franc yi ñun ñoo nekk di ko continuer léegi bu ñu defee liggéeyu franc yi ba pare léegi ñu ne léegi ñun ñoo jox autorisation franc-maçon yi ñu restreindre ñu ci internet bi parce que ñun ñooy ñëw ba léegi ah ñun ñooy ñëw di taxaw Akhenaton ci population bi la bokk. ñeneen ak ñeneen comité yëpp ci population bi lañ bokk ñoom ñooy def liggéeyu franc-maçon bi tey bu ko defee nag tey seen liberté d'expression mooy wàññeeku day koy réduire te di nga dem ba euh, da ngay foog ne ne sa bopp ngay xeexal nekk te paaka bi lay rendi nga jël teg ko sa put di kadaas ba mu baax parce que tey ku attaqué sëriñ si ku attaqué religion yi nga xam te ne tey quatre-vingt-dix pour cent mun naa wax ne même quatre-vingt-quinze pour cent des sénégalais ont une religion ku ci nekk am na am na fu mu bokk am na lu mu gëm am na loo xam te ne kenn mënu ko génnee ci moom nga nekkal ko ci di ka saaga di ka xas di ko saaga di ka xas Macky Sall day dem réunir ak sëriñ si ak prêtre ya curé bi def fi benn réglement boo xamante ne ñun ñoo koy valider ñun ñoo koy valider ñun ñooy valider règlement bi Macky di def liberté d'expression bi ñu am ñun ñoo koy réduiral suñu bopp parce que ñun ñooy ñun ñoo koy conduire ba nga xamante ne une bonne partie de la masse sénégalaise bi nga xamante ni pour rien au monde bu ñu doon deew a xiif sax tey boo leen newoon tànnal deew a xiif ak tànnal sa religion nekk murit dañ la naan sama morit nekk morit moo ma gënal xam nga lekk ñooñu tey vous leur avez fait vous voulez leur le choix le choix est vite fait tey Macky Sall dinañu réduire dinañu wàññi à notre juste valeur sëgam ñun ñoo mën a dem ne Macky Sall demal jàpp diw parce que mu ngi xee mu ngi wax li nga xamante ni ñun neexuñu ce même Macky laa ñu jox ko autorisation ne fa ñu saaga prophète Mohamed demal taxawuñu fa parce que bu ñu bu ñu waxulee dara rek mooy on est d'accord on a été d'accord mu jël suñu kérosène dem ba foofu représenté ñu ne il est Charlie léegi ñun suñu même surtout population sénégalaise ñooy newaat Macky Sall bu dee nit ku ñuul ka la. boo xëyee naka sudul noonu boo xëyee la même chose que li Charlie wax demal def ko châtiment Macky Sall jaaraale fa nag wax ngeen dëgg la ñu wax sëriñ si baaxut mais lañ may wax tamit neexul kon ñamay saaga ak ñay saaga sëriñ si yëpp lay jël tëj seen gémmiñ wut loi boo xam te ne ku ñëw ma ne ko ràpp tëj ko ci kaso il va réduire vos droits loolu bu leen sax xalaat pourtant doomam lu ko neex def ci dëkk bi mbokk mi lu ko neex la def ci dëkk bi la ñuy wàññi seeni droit parce que Macky Sall il en a rien à foutre de vous neexul ba neexul Macky Sall faalewu leen Cissé Lo faalewu leen Baba Aydara faalewu leen moom dafa foo seen intelligence sax parce que taxaw ne borom xel yi lay waxal indirectement. il veut sélectionner les cons pour continuer de les mater mais ñii nga xam ne seen xale yi dañ koy utiliser que kenn du leen kalli kalle moom léegi da leen tuddee ñu amul xel parce que foog na ne mën na jaar ci maayinu sénégalais yi ba mun ñoo gobeloo les conneries qu'il veut débuter te xeex bi si biir xeex la tey di ngeen gis yeneen infiltré yoo xamante dañuy ñëwaat dugg. di xeex baaba ay dara parce que ku ci nekk day wut nu mu gën a jaxasee nu mu gën a jaxasee 2024 sori na soriwul moo tax politicien bu nekk di poser pion benn par benn benn par benn ñoom ñëpp ñu ngi poser ay pion parce que c'est comme ça que ça marche au fait Sénégal parce que méthode bañ doon def jamono maam yi ba léegi ça marche xam lu tax ma leen ça marche parce que ñas Moustapha Niass mu ngi ci gouvernement bi ba léegi ak âge mu am yëpp donc ça marche tey ñoom Tanor doo toog nañu gouvernement bëggee na àdduna donc cette méthode ça marche méthode bi ñuy utiliser nii ku nekk ci métode bii nii doo jël retraite daal da ngay am salaire à vie. comme ña il est payé Tanor à nous mentir à, à préserver la euh, euh, euh, nu ñu koy waxatee le monopole des des, des voleurs tey seen monopole bi ñoom entre sa yi pour ñu préserver ko il se paye bien il se paye très bien Sénégal y a combien d'enseignants yoo xam te ne tey son sont mal payés et même voire même des fois ils sont pas payés combien d'enseignants est-ce que génn nañ ci mbedd bi ne dañuy xeex jamais kon kaani bi méttiwul de kaani Macky Sall dafa mel ni nga teg sa ceebu jën def ci tuuti kaani muy saf ceeb bi ñuy kaas naan ceeb bi nëb na ceeb bi baaxut am na ñu koy lekk ceeb bu bon bi Macky Sall joxe am na ñu koy lekk am na ñu ko nangu am na ñu ko accepté xam nga boo demee ba accepté merde mu dugg sa biir kër même boo ko lekkulee accepté nga ko Macky Sall day cautionné kër gi joxe woon naa fi ceeb même bu dee merde parce qu'on ne se respecte pas c'est tout tey population bi yërëm yërëm man nee naa je compatis tout tout juste un tout tout petit peu mooy sama carte électeur je sais que du moom voteel koo xam te ne day sàcc askan bi ma gis ko teg ci samay bët du ma voteel koo xam te ne day fenn askan bi moo ma teg ci sama bët du ma ko voteel man je suis pas Cissé Lo et je ne serai jamais Cissé Lo man ki may voteel day nekk koo xamante ne tey jii won na ma la tax ma koy voteel te ñenn ñi à force d'avoir une haine envers Akhenaton qui ki pas de Pastef lépp ñu ngi koy def ci doowu Sonko am en ci ñeneen ñay saaga ñu ngi koy def ci doowu Sonko ku ci nekk mu ngi ciy wut alibi Sonko Sonko Sonko donc Sonko vous dérange yéen paa yi ak ñiy topp ci ginnaaw paa yi Sonko vous dérange mais lan moo tax Sonko déranger leen yéen te mu nekk même génération yéen man loolu laa comprendre paa yi nga xam te ne dégguñu jàtt pas yi nga xam te ne àndu ñox yenn génération pas yi xam te ne ñu ngi leen di sàcc il ne vous dérange pas un deux trois rek ña Sonko un deux trois ña ànd ak Sonko ña ànd ak Sonko ñooy so ñooy saaga mais Assane Diouf mu ngi saaga àndul ak Sonko mu ngi ànd ak Karim est-ce que dañu ne ña ànd ak Karim Wade ñooy saaga tey Assane Diouf ci page am lay saaga ñeneen ñi si seen page la ñuy saaga. léegi lu tax kut ko kut ku saaga ku xas ñu ne ca Sonko ba la bokk te ku bokk ci yeneen parti bu saaga saagawee kenn du ne ca Sonko la bokk ci ci parti boobu la bokk waa réew mi ison ont des insulteurs man ils m'ont insulté une fois xanaa kenn dañ leen calculer wul mais euh, PDS am na insulteur parce que kii kii kii kii nu mu tudd. Euh, bañ ba dee bañ ba dee insulteuru PDS la moom nee na PDS moo dee ci xew xalam est-ce que dañ naan ñi ànd ak Laay Wàdd ñoom ñooy saaga mais quand ça il s'agit des des gens de Pastef tout de suite il faut que ñu defal leen benn étiquette waa Pastef ñooy saaga waa Pastef ñooy attaqué waa Casamance ñooy mais attends lu tax mënoo leen ne maam mooy saaga wala ngeen ne diw mooy saaga diw mooy saaga parce que kay saaga am na tur kay saaga tuddul Sonko tonton Cheikh maa ngi nuyu bu baax a baax kay saaga tuddul Sonko santul Sonko bokkul ak Sonko ndax baay man mii ne Macky dafa ëmb man Sonko bokkuñu ndax baay maam moo saaga maam moo ne Macky Sall moo ëmb. Macky Sall moo am góor gu am ween bi mais pa lu ñu koy teg ci doowu Sonko fet man loolu laa comprendre après les candidats de internet c'est les candidats modernes c'est un candidat moderne tey boo gisee yeneen candidats yi nekk ñu candidat internet parce que kenn du leen seetaan kenn du leen seetaan te ay dala bul foog ne ni Sonko dina la tontu amul sax sa temps a même pas ton temps je pense pas qu'il va te répondre parce que son mi ma gis mu am fulla am fayda bii nii foog mën na attardé wu sur des conneries yow même tu vas rentrer dans ton propre piège yow ay Aïdara parce que tey wax nga def nga vidéo def nga lépp les gens te la question mais vidéo bi nga def yëpp yëpp yëpp au final qu'est-ce que tu dire au fait parce que ñu ngi lay laaj ñu ngi lay laaj soble dafa mel ni nga yónni nit ki soble moo dem jëndal la laaj tey ñu ngi koy laaj soble mu ñëw indil ñu laaj. ñu di ko laaj soble mu ñëw ne ñu ne ñu di ko laaj ci pétrole mu ñëw naan ñu neen euh, Ousmane Tounkara euh, góor gi nga xam te ne euh, xaw ma yaay jabaram de jaay nokos muy distribuer nokos mais attends koo leen yàpp koo leen yàpp moo tax ñu am carte électeur war voté xam leen ne seen carte c'est très important ne soyez pas des futurs Baba dara wala de futurs du koy waxatee Cissé Lo carte bi ngeen yore c'est très très important man nee naa même bu ñu bulewul Macky Sall man sama carte du contribuer mukk à maintenir des voleurs et des menteurs et des violeurs au gouvernement dans le gouvernement jamais tey da ngeen yàpp askan bi mais yàpp askan bi ji nga Yérim Seck moo tax muy ñëw ndànk-ndànk ñu ngi koy nekk naa man c'est la première fois ma dégg nit ki ñu koy jàpp ci avortement mais Sénégal moo neex dégg naa Yérim Seck dañ ko jàpp ci avortement xaw ma dafa avorté loo benn xale jox ko xaalis Sénégal neex na de luñ la bëgg a jàppee rek jàppee la luñ la bëgg a jàppee rek jàppee la tey nee naa boo leen jógulee kenn du leen jógal Macky Sall méttiigul ah moo tax ñenn ñi xam nga am ngeen temps wu fecc am ngeen temps wu lëmbal am ngeen temps wu am ngeen temps wu dem ngénte kon méttiigul door yi leen Macky Sall di door méttiigul de Macky Sall bu ko neexee mu jël Sénégal yëpp dem partagé ka ak famille parce que méttiwul le jour que ça va faire mal le peuple même va se lever tant qu'il se lève pas c'est que kaani bi dafa du kaani bi leen Macky Sall di def de dafa dou Macky Sall li leen di dóor dafa neex Macky Sall xaalis bu muy jël di ko tuut ne dafa neex ne ngeen Sénégal dafa neex salte ba nekk Sénégal yëpp yéen salte ba neex na leen mbënd bi bu ñëwee ngeen jooy ko deux jours boo pare ku nekk dem toog këram tabaski bu jotee ngeen tabaski korité bu jotee ngeen tabas ngeen korité la vie est Donc, au final, c'est comme ça que vous vivez chez vous. C'est votre façon de vivre. Fifi, a baax c'est votre façon de vivre. Mais nous dañuy que seen civilisés. seen sommes civilisés. Nous droit. fii benn nit buñ ko dooree sax waa dëkk bi dañuy jóg xeex lu tax ñu dóor ko yéen ñu ngi dóor seen ndey yi c'est pas très choquant ngeen toog ci tele yi ngeen gis seen yaay yi ñu leen di door maki Sall di leen dóor Macky Sall di leen brutaliser loolu yëpp méttiwu leen bu ñu waxee nga ne waa ñu nekk ci diaspora bi dañuy wax rek ni ñëw sur le terrain sur le terrain yan ñi nekk sur le terrain yan la ñuy dóor yan la ñuy toroxal yan la ñuy yokk seen ceeb yan la ñuy yokk seen dawlin yan la ñuy yokk seen courant yéen yéen a yéen yéen a koy dundoo yéen yéen koy vivre. ñun on compatit on compatit xëy na compatir bi rek rek rek moo tax ba ñuy sot naan lii ngeen waroon def mais boo leen gisee ne loolu noonu xeex beex yooyu yëpp c'est trop demandé bu kenn xeex bu kenn xeex bu kenn génn bu kenn def daara toog leen rek toog leen comme ay xaru yaru Macky Sall mu di leen dressé nu mu leen neexee xam ñenn ñi nee xelu ma lëg dem na mais Macky Sall il en a pas de compte à vous moo tax.